alhamdulillahi alkarimi silmilan alastihadi bi furudin wa sunan sakartuhu liannu xad saxani liwatani bi nafama anfani aousubillahi min asheytaani irajim bismillahi irahmani irahim alhamdulilahi rabbil alamin allahuma salli ala seydina muhammadin wa sallim ñoo ngi santaat yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di santaat Sëriñ Tuubaa Cheikhul Xaddim bu baax a baax di ñaanal Cheikh Mountakha Bassirou Mbacké yàlla na fi yàgg te wér di ñaanal njabootug Sëriñ tubaa gépp tawfeex ak ngërëmal Sëriñ Tuubaa di ñaanal sëñ Moustapha Jaxate Xaadimul Xaddim tawfeex Sëriñ Tuubaa ak ngërëmam di amati mbégte lool di ziare itam ñi nga xam ni ñoo ñuy safoo di ñu topp ci njàngat yi di yaar kilifa barab bi sëñ Moustapha Jaxate xaadimul xaddim bu baax a baax waa daaray sàqu soppey daaray sàqum Tuuba ñëpp rek di amati mbégte bu baax a baax di ñëw seen jàngatu tey Al-Laxdari bi nga xam ni muy jawharu nafis bi sëriñ bi way te sëñ Habibu di ñu ci indil bunt yu am solo ñu fas yéene te def ay jàngat tey mu indil ñu lu am solo rek laale ñu tuuti ci julli Eh, solo si mu am ak ni ko yonent bi sallallahu xaj na leeraloon na ko sax waaye da cee laalaat rek indil ñu itam ci li nga xam ni moom la ko suñ borom séddale ak eh, dugg ak ñun ci njàpp nag mbir yi nga xam ni mooy waral njàpp yàqu muy lu am solo nga xam ni julli moom Euh, kon jàpp mooy tax julli baax euh, kon lu mot a fonk la waaye julli moom itam gis nga ni ko sëñ Abibu waxee suñ boroom bi mu koy digal mbindee fii gis nga dafa woo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxal ko ko boppam ni ko sëñ Habib waxee li ñuy wax mais en main nga xam ni yàlla ak yonent bi képp euh, riñaane ko nag nga xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa bi mu ne démb damaa demoon baytul maqdis euh, weddikat yi ak yéefar yi weddi ko nga xam ni Abu Jahlin dane ko yow li nga xam ni doxub gilim la lu mat weer lu yàgg la yow nga ne genn guddi dem nga ci loolu mën a nekk euh, ndax bu mu ne laaj ko ndax bu ma woowee nit ñi dañ ko wax ci biir nit ñi waaw gis nga gis nga fii lim ci jublu ndeysaan ngir tiiñal yonent bi sallallahu alayhi wa ngir bu ko waxee ci biir nit ñi rek ñu baree bari ne ah liñ leen doon wax nag dëgg la kii Mouhamed dof giñ ko doon jiiñ ak eh, li muy wax tegu ko fenn liñ ko doon ji ñàkk koo gëm kon ñun ñu am dëgg ndax lii muy wax yenul maanaa ah, kon kii xam ngeen ne daa tàgg sagom loolu la ci doon jublu waaye li olof di wax yàlla buy defar day mel ni ku yàq <laughs> waaw nga xam ni eh, bi mu woowee ni ñi doon fi sallallahu alayhi waxaat ko ñu ne nañ woo Abu Bakrin biñ ko woowee dana leen ndax moo ko wax ñu ne moo ko wax mu ne leen bu ko waxee rek dëgg la xam nga foofu al amin biñ ko doon woowee day feeñ foofu ndax yonente bi ko ne xam na ne bi mu daataan jot nubuwoo bi ku ñu wóolu woon la ku juboon la ba nga xam ne jikkoom dañ koo naw waaw nga xam ni Aboubacar moom dafa dëggal ci moom ne leen moo ko wax bu waxoon ni dem na asamaan sax ma gëm ko yonente bi ne ko eh, yàlla xam na ni dem na asamaan gis nga kon moom sax gëm na lu raw loolu bi mu daataan yëg loolu waaye nga xam ni ku ñàkk gëm ñu koy laajaat ay preuve ah, ne ko lan mooy tegtale ni yow demoon nga baytil maxdis mu ne leen mës ngeen faa dem ñu ne ko waaw mu ne leen bërëb sàngam nii la mel bunt sàngam fii la féete waaw nangam ak nangam a fa am ah, ku fa mës dem buñ la waxee nangam ak nangam loolu dëgg da lay wóor ni lii dëgg la waaw ah, mi ngi mel ni Tuubaa tey ku fa mës dem rek eh, nit na la. barabu Cheikhul Xaddim fii la nekkee kër sëñ Fallou fii da féete ko fii kër gu mag féete ko fii daaray Kaamil féete ko fii kër sañ Saliou féete ko fii armeel yi nekkee ne le la da nga xam ne kii li muy wax dëgg la mi tegal leen ci nag yamu ca ne leen bi may dëpp am na njëgg moo xam ne daje naa ak ñoom te dina dinañu egsi nga xam ne am na gileem goo xam ne bu ñuy egg see xuru sàngam dafa tiit te itam am na koo xam ne ndoxam jeexoon na waaw te dinañ egsi eh, bis sàngam te bi bi ñu gëstoo nag ba bi bi ñuy egsi ñu génn taxaw di xaar ngir bëgg lee ba léegi tiiñal yonent bi sallallahu alayhi bi ñu egsee ñu laaj leen yoolu am ku ne man de wax dëgg yàlla sama gileem tiitoon na waaw ñu egsee bërëb sàngam waaw muy li bi sallallahu alayhi wa sallam wax ki jeexaloon ndox itam wax loolu waaw waaye gis nga ku yàlla narul maanaam deful sa xol nga nga nar koo gëm doo gëm mukk ñii yàlla da leen di bind dañoo nar a dem safaan ba kon moo tax mënuñoo fexe ba gëm loolu nag dafay mel ni buñ ko jàngatee ci jamono bii nii mooy laa ikraa fi diini rek euh, nga xam ni ñi nga xam ni fekk nañ fi woote yi lislaam gis lislaam gis jullit yi ñuy doxaleeg lépp ñu dégg woote yàlla suñ borom bi te nanguwuñoo gëm kenn du leen forcer waaye jamono bii nag gis nga kon loolu day àtte rek ni radicalisme benn bi ñi nga xam dañuy mbubboo lislaam di yàqal nit ñi di taal ay bombaka di rey ay nit di jàpp ay jigéen dem ba sax di jàpp leen def leen seeni soxna ci lu dul lu dul yoon di def yëfi saay-saay yoo xam ni yàq deru lislaam la kon tey xam nga loolu lii da koy leeral bu baax a baax ndax ñii bu yàlla suñ borom naroon ñu gëm dañuy gëm te yàlla mi aru kàttan bu ko neexoon mu def seen xol yi ñu gëm ko waaw muy lu am solo nga xam ni kon sëñ bu leeral ñu kon julli gi njëkk gi jullit njëkk julli yonent bi sallallahu julli gi njëkk a mooy tisbaar kon ku la laajati bañ julli lañ njëkk a julli neel tisbaar la ndax Jibril alayhi salaam moo ñëw jàngal kon yi ngay jullee waaw naam jëli ko waaye Jibril la yàlla yónni mu koy won action yi ni mu koy defee sa gëg si geeg kàbbar ñoom seen ila axiri ba mu jeex bu ko defee nag ñu jul tàkkusaan mu ñëwati woon ko ñeenti raaka timis mu ñëwati ko woon ko ñetti raaka gee noonu ba suba waaw yii yii nag eh, gis nga am solo gi mooy niñ koy waxee rek boo jàppee diggante bi nga nga julli tisbaar diggante tisbaar ba tàkkusaan nga nekk fii di xalaataat yàlla suñu borom amaat audience ak yàlla suñu borom diggante bi mën nga fee bañ a mooy yàlla ba sa xel dee dem ci yàlla nga waajati timis di jot nga war a am audience ak suñu borom encore bu la yàlla dimbalee diggante bi mën nga fee bañ a mooy ba gee waaw gis nga boo demee ba ba nar a tëdd julli gee nag ñu ne la na naafi la ah amati ci bonus yaakaar naa ni eh, boo tëddee xëy suba itam jubluwaat ci yàlla ku ko dëkke nii te teewlu yàlla suñu borom mën ngaa baax lool te tere yàlla yi doo ci jëm te ndigal yi ci ngay sax yàlla nañ ko yàlla defal muy la am solo waaye gis nga seen xabibu indi lu am solo mooy ni ko yàlla dugalante maanaam ni ko yàlla euh, xaajalee ak waxtu wu nekk waxtu wañ ci war a julli ak distance yi ñu am nga xam ni euh, wax na ni am na num ko noon defee nit ki dina nalaw nalaw yu neex dem ba trois heures du matin <laughs> maanaam nga war a julli benn julli xam nga loolu day yéeme waaye yàlla gis nga ci yërmande gi ak yërëm nit fii tam yonent yàlla Moussa li mu waxoon yonent bi nag sa askan wi sama xeet moo leen ëpp doole te attanuñu fi juróom fukki julli lii bu doon juróom fukki julli dina yéeme lool ndax nit ki dootul am jotu dallu kon fu mu nekk rek waxuma la juróomi julli rek mu mënuñ ko matale nga xam ne waxantuma la ak juróom fukki julli nag ba noppi yàlla defal ñu ci juróomi julli yi nga am yoolu juróom fukki julli te am na noo koy toppee naafile yi ngay def ak lépp day dem ba mat juróom fukki julli kon mu la muy loo xam ni lu am solo lu mat a bàyyi xel la nga xam ni yàlla kon ni mu bëggee doomu aadama yombalal ko yépp waaw taw fee xelal ko yëpp ba nga xam ni day tolloog maanaam daanaka teyug ba kanam waaw nga xam ne day defal la ay ay ay moxtaar ay dareer yi nga xam ne néewu la rek waxtu yu rëcc rek par force da ngay julli da defal moxtaar defal la daroor waaw gis nga timis ak gée ni seen moxtaar ak daroor yu duggante nga xam ne léeg-léeg sax mën nga leen a boole julli kon jàppandal gi macha allah lay moom amul si doomu aadama ndax euh, yàlla bëgg gi mu teral gi mu teral doomu aadama won nañu ko won nañu ko nu ne kon njukkal gi yaakaar naa mooy bañ a mooy yàlla di sant yàlla foo toll ci kàttan gi mu la jox ak yépp delloo ko ci jaamu yàlla yàlla nañ ko yàlla defal euh, li ci des muy ñu dugg nag ci li nga xam ni mooy euh, yàq njàpp muy ñaari fànn ñu jàngat ko tey muy am toj ak luy loo xam ni sabab lay doon waaw kon am toj moom mm, euh, li ñuy njëkke mooy nit ki bu fekkee dafa jàpp ba noppi safa dem woon ak maanaam safa safa tuur ndox masalan ah, bu tuuree ndox njàpp mi yàqu na waaw ah, bu ngelawalee njàpp mi yàqu na bu dee góor lu mel ni mas yu nga xam ni ndox mu oyof lay doon léeg-léeg muy génn bu sawee ba noppi loolu day yàq njàpp ah, walla itam muy raayanteeg jigéen ba loolu génn day yàq njàpp bu demee woon ak itam xayta day dàq njàpp ah, li beneen ndox boo xam ne day génn ci goor muy waddi yu nga xam ne léeg-léeg bu sawee lay génn ndox mu weex day yàq njàpp moomit kon muy yu mat a bàyyi xel yu am solo ndax nit ki jaamu yàlla bu muy def rek lay tax du mat wala du ñoŋ wala yàlla du ko nangu war na ko xam ba moytu ko def ci kéemtalaay kàttam ndax dañuy wax nit lépp lu mu def rek mënoon na koo gën a baaxal <laughs> kon nit dafa gàttañ ko kon nit war na fu mu toll di góorgóorlu di gën a jox yitte surtout jaamu yàlla suñ borom subhaanahu wa taala euh, sabab yi nag sëñ Habib dikk dikk seeg ñun mu am solo moom it muy lu mel ni xëm nit ki jékki-jékki tàggu sagom rek daanu nekkatu fi nga xam ni kon te loolu day gaa doomu aadama kon nit ki bu xamee rek bu ximmile koo rek nga xam ni njàppam yàqu na nelaw yi diis nga xam ni tey masalan bu fekkoon uh, jàpp nga ba noppi di xaar waxtu wi jot tëdd sa uh, walla nga toog ca ci sa fauteuil nii rek yor sa kurus di mel ni luy wërd uh, da dangay jekk nga jekki-jekki rek kurus gi wadd te yógoo ko boo boo xoolee rek jekki-jekki gis sa kurus si suuf na nga xam ni nelaw yooyu diis na kon na nga dem jàppiwaat waaw wala nga yor lu mel ni bic di nelaw mu wadd waaw wala nit nuyoo déggoo ko wala yu demee noonu kon yu mel noonu ci la nit di xamee nelaw yu diis kon loolu day yàq day yàq euh, njàpp lu mel ni màndi itam day yàq njàpp kon nga xam ni ko suñu Habibu waxee kon mën ngaa màndi ci sàngara waaye mën ngaa màndi ci soow waaw tey boo naan soow soow lu baree baree bari jékki-jékki mel ni tàggu sa sago euh, sa njàpp yàqu na bitiyees mooy mooy tàggook sa sago maanam li li ñuy woowee dof waaw nit ki bu jekki-jekkee rek am ak ak di dugg ko xel mi dem diggante boobu nga xam ni kii wër la ne ni moom ak dof dugg na ko mu def di fi dof nekkatu fi bu jekki-jekkee xel mi dellusiwaat diggante boobu njàppam yàqu na waaw foon jigéen ci bakkan wala ci gémmiñ waaw maanaam lu mel ni nga foon sa soxna ci bakkan wala sa gémmiñ boo ko defee njàpp mi toj na fireeku na kon moom waaw kon yooyu yu mat a bàyyi xel la kon xam nga ñu bari sax dañuy foog ni maanaam bu dee sa soxna moom dagan na wala dara nekku ci waaye xam nga loolu kon lu mat a xam la nga xam ni itam loolu liñ ci liñ ciy bañ rek mooy maanaam li ci bànneexaw yu demee noonu waaw mi ngoog waaw waaye gis nga itam mm, jigéen bu fekkee dafa laal awraam ci loxoom rek raay ko ci kaw yàqul njàpp waaye bu fekkee dafa lonkal baaraam bi ci biir loolu day yàq njàpp loolu moom mooy mooy booy bu dee jigéen bu dee góor yitam bu fekkee dafa laal jigéen di ci bànneexu bànneex ba bu ko ci amee ak bu ko ci amul yëpp day toj njàpp waaw bu ko ci jubloo waaw waaye bu fekkee nag maanaam dafa laal jigéen jigéen di koo laal te moom jublu ba ci am bànneex mu am ko ca kon njàpp mi day toj mi ngoog bu dee góor nag bu laalee sàkkaraam ci biir loxoom maanaam fi xonq bu ci laalee sàkkaram rek njàppam toj na moo tax gis nga booy sangu farata dañuy bañ euh, dañuy bëgg nga njëkk a raxas sa awraat euh, sobe sëpp nga dindi ko soog njàpp njàpp benn benn nga xam ni sa sa biir loxo moom doo ci ci laalati sa awra kon muy jàngat bu am solo waaw bi ci des tam mooy jàpp ba noppi di toog lu yàgg di sikki sàkk ndax man ah. saw ma woonam wala ngelawalu ngelawaluma wala yu demee noonu wala sama njàpp yàqutam sikki sàkk boobu bu nekkee ci yow rek nee na sa njàpp toj na fii reku na waaw kon euh, jàmb itam war nay fexe ba buy jàpp wala dara muy sa xelam di ci nekk mu xam li muy def waaye bu fekkee koo xam ne xel mi dafa yàqu nag maanaam xel mi à chaque fois sikki sàkk boobu da koy dal fu mu toll di sikki sàkk kooku dañ koy may nag moom bu jàppee na doy loolool rek jàpp ni am na njàpp waaw mi nga ko nga xam ne itam ñu jàngee nii mas itam loolu bu génnee sa sàkkara boo sawee ba noppi nag da ngay raxas sàkkara ba mu set wecc waaye ñaari waay yàlla yi nag doo ko raxasaale ca ca sa sangu farata comme ni ngay def waaw da nga koy raxas rek ba mu set nga xam ne mas yu bi bànneex bu ndaw sax daf koy daf koy génne maanaam ngay xalaat lu neex wala ngay xalaat euh, sa soxna wala yooyu ba mu génn euh, yu bi demee noonu kon daal nga xam ne jàngat yu am solo la tey yu mat a bàyyi xel ndax itam lépp loo xam ne day ñoŋal julli di baaxal jaamu yàlla rek dañ ko war a fonk surtout njàpp nga xam ne njàpp dafa mel ni mooy laytaay njaamu yàlla yëpp booy julleeg boo bëggee jàng alxuraanul ak yu baax yëpp ba ci xaside yi boo koy jàng lépp rek ba ci booy yor sa kurus di tudd yàlla da nga war a sell kon nga xam ne njàpp boo ko xoolee day mel ni dafa am solo dafa am solo lool waaw waxuma sax maanaam julli gi ngay julli wala jàng alquranul karim wala tudd yàlla gi ngay def waaye toog rek sell yor njàpp waaw dafa baax ndax jaamu yàlla mën na laa bett fu nekk waaw mën na laa bett fu nekk génn mën na laa bett fu nekk boo yoree njàpp nag fu la eh, génn bettee boo génnee itam fa nga jëm boo fa amul ndox danga mën a jaamu yàlla nam la neexee waaw kon nga xam ni lu am solo la. waaw léegi nag euh, di ko saytu ba koy defee euh, ni mu gën a te xam li koy toj ak li koy firi loolu lu am solo la moo tax bunt bi tey am na solo lool sëñ Abibu ñu ngi santaat yàlla di ñaan yàlla suñ borom mu defal ñu dégg ak topp te yokk xam-xam bi bu baax a baax te fayal ñu Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moo woy Jawharu Nafis bi ñu ciy jariñu bu baax a baax a baax a baax alhamdulilahi rabbil alamin allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim assalaamu aleykum alhamdulilah alkarimi silmilan alastighali bi furudin wa sunan sakartuhu liannu xad saxani liwatani bi nafa ma fani